ba tey si njàngale mi rek la nekk ñu ngi si woon ci nag ñu ngi si buntu euh, taazim ilmi wa ahli màggal xam-xam ak waa ñooñ xam-xam wax na la ni ñuy màggale sëriñ ak ni ñu koy wax na la it noonu la ñu ormale doomu sëriñ ak li awju sëriñ wax na la nan la ñuy tey nag ñu ngi war a wax la tey nan la ñuy màggalee kii lay jàngal ak noy màggale sa téere yi ngay jàng moo tax mu ne wa min taazimil muallim bokk na ci màggal muallim ki ngay jàngal ki lay jàngal taazimul kitaab nga màggal téere bi ngay jàng ndax boo ko jàng bu mokkalee ci la sa martaba di yëkkati kon màggal téere boobu mu màggal la yowit fa yanbaghi li taalibil ilm war na ci li kii sàkku xam-xam an laa yaxuzal kitaab illaa bi tahaara bu mu jël benn téere wala benn kayit bu muy jàng lu dul dafa dem jàppi ba set doo ko ñëw jël loolu jàng wa hukiya an cheikh samsu aimmatil xalawaani rahimahullah waxtu jële nañ ci waxtaan ci sëriñ bi le mu ne annahu moom day qaala nee na bañ ko laajee foo amee xam-xam yow sëñ bi mu ne innama niltu haada haada al ilm man li tax ma am xam-xam bi bi taawimi ngir màggal xam-xam ci laa ko amee dama màggal sama màggal xam-xam jox ko cëram jox ko gëddam loolu moo tax ma am xam-xam kon ku roy ni moom rek am li mu amoon mu ne fa inni ma axastu kaaxata man mosumaa jël benn këyit illa bi taxari dul dama amee njàpp damay jàpp ba noppi doo ko jël di jàng wa cheikhu ay achamsu aimati sarxasiyu rahimahullahu taala kii ni kaana moom nekkoon na mabduunan am na jamono biiram da doon kaana yu kariru fi layl nekkoon na di réviser di jàng fi leyli ci guddi waaye nag fa yatawadaa fi tilka laylati moom jàpp na ci guddi googu sabaa asara mara fukki yoon ak juróom-ñaar dem di jàpp rek di ñëwaat di jàpp di ñëwaat moo tax fa innahu loolu kaana laa yukarriru moom nekkoon na du réviser maanaam du jàng bindam illaa bi taxarudul dafa amee jàpp kon wa loolu li mu waree rek mooy li anna al ilm nuurun xam-xam leer la wal wudu nuurun njàpp tamit leer la kon bu amee rek fa fa yazdaadu nuur al ilm bihi day yokku day yokkoo xam leeru xam-xam bi bii ngir jàpp boobu kon jàpp baax na lool wa min taazimil waajib bokk na it ci màggal li war allah yamudda rijlahu ilal kitaab taalibi bu mu tàllal ay tànkam mu jublu ci téeréem ndax loolu du orma wa yadau kutubal tafsir buy tegale ay téeréem it bu koy rangale na jël téere tafsir yi mu teg ko fawqa saa'iril kutub ci kaw mboolem téere yëpp taaziman ngir màggal alquraanu yàlla bi kàddug yàlla la wala yadu ala alkitaabi shay'an axar bu mu teg ci kaw téeréem bi leneen lu bokkul ak façon xam booba wa kaana ustaazun cheikhul islam burhanuddin rahimahullah taala kii ni moom day nekkoon na yàq kii muy waxtaan benn waxtaan waaye mu ko jëlee an cheikh ci benn sëriñ minel masaaj ci sëriñ njëkk yi lan la wax mu ne an na faqihan naka borom benn xam-xam kat kaana wadaa al maxbarata al kitaab dafa mos a jël benn daxaa mu teg ko ci kaw téere bi fa qaala lahu bil na barnaya bi ñu wax ko ñu wax ko ci kàddu faris seen làkk waa faris yooyu romain yi mu ne ko barnayaa bi barnayaa bi li muy firi boo demee si tafsir bu mag bi dafa lay wax ne la mooy def ko wax ne yàlla bu yàlla barkeel sa xam-xam ndax dangaa doyadal xam-xam moo tax wa kaana ustaazuna alqaadi imaamu ajalu faxrul islaam almaaruf bi xaadi xaan kuñ ko ku ñu xamee xaadi xaan rahimahullah taala moom de yaqulu nee na in lam yurid bi zalik su fekkee ne nag ki teg dara ci kaw téere bi jubluwu ci lam yurid bi jubluwu ci loolu istixfaafa oy doyadal xam fala baasa bihi loolu dara nekku ci waaw loolu loolu la gëm moom it waaye nag wa awla li war dëgg-dëgg mooy an yataxarraza anhu mu moytandiku di teg dara ci kaw téere waaw loolu moo gën a yey wa min taazimil waajib bokk na ci màggal li war ba tey an yu jawwijul kitaabata taale bi na rafetal mbindam loolu boo demoon euh, tey jii tabaarakallaa boo demoon xel koom da nga xam ne xale yi macha allah macha allah yal yàlla fayal sëñ Saaliw tabaarakalla xale yi ku mokkal alquran bala ngay dem fenn faw nga bind kaamil ba mu jeex bind yu rafet moo tax mu ne wa min taazimil waajib war na ci màggal li war mooy an yu jawwidal kitaaba alkitaabat maanaam nga rafetal sa mbind bi ngay bind alkitaaba ci sa téere te wala yu xar xarmit bu sewal say mbind boo sewul ba pare wa yatrukal xaashiyata na nga bàyyi espace maanaam diggante fii loxo mun a tegu fu baaraam mën a tegu ndax boo ko boo bindee lépp boo booy teg sa loxo baaraam ci kaw bindi nga ko teg kon da ngay bàyyi espace illaa indi dara lu nag bu dul jamonoy lor amuloo noonu rek la nga mën a def ah foo kon nan nga koy bindee waraa abu xanifata rahimahullah taala kitaaban abu xanifata mos na gis benn téere kitaaban benn téere yu xarme du ñu bind ko waaye sewal bind yi lool fil kitaab yi ci mbind mi fa qaala mu ne kii doon bind yow lu lu tax ngay sewal sa bind yi nii lu tax nga sewal ko mu ne ko fa in ista in ista tàndam xam naa si dara day boo dundee danga nga rëccu ji de waaye in mutta tustam boo deewee it danañ la xas danañ la saaga yaani li si abu xanifa te jublu mooy mu ne ko in sixta soo demee ba màgget wa daahu basaruko mu dem ba doye di say gis-gisu bët maanaam mu dem ba oyof maanaam dem ba nga xamante saan say gis-gis bët fooratul tàndam da ngay rëccu ala zalik si li taxoon nga sewal sa bind yi kon rëyal bind am na solo lool te rafetal ko it rafetal ko bu baax a baax loolu ci màggal xam-xam ak mbind la bokk waxuki an cheikh al imam majduddin sarjaki jëlee nañ ci waxtaan ci moom mi nee na maa xarmat naa illaa na dem naa ñun dey ba ñuy xale mosuñoo sewal suñu bind lu dul ba ñu màggee rëccu nañ ko waman bax naa ñun de ba ñuy nekk ay xale manta bax naa maanaam jëluñu woon suñu mbind jox ko keneen mu xoolal ñu ko illaa na dem lu dul rëccu nañu walam nu qaabil illaa na ba ñu bindee ba noppi it joxuñu keneen mu vérifier ñu ko lu dul ba ñuy màggee rëccu nañ ko kon gis nga soo sewalee di nga rëccu boo bindee ba pare joxuloo keneen mu xool ko toppal la ji danga nga rëccu ndax mën na amay fët wala nga bàyyi ay masque bu fekkee ne bind nga ba pare joxuloo keneen mu defal la ci synthèse Ah, ba tey foo jaar rëccu kon wa ala kulli xaalin faw nga def loola muy ñuy bind livre yi sax ñuy bind livre tubaab yi sax bu paree dañ koy yóbbu ci ay livre wala ñu yóbbu ko ci ay ay ay expert ñu xool ko xoolaat ko càmbar ko ba xam ne ndax amul ay faute wala ay faay mu nga kon ñi bind ci lislaam tamit nañuy def noonu moo tax wa yenn bari war na an yakunu taqraul kitaab su fekkee da ngay bind dangay ngay dagg téere di koy bëgg bind ay kayit murabbaan da nga koy da koy bind mu am ñeent koñ comme ni ñuy bind comme ni ñu kaye yi mel rek maanaam ñeent koñ fa innahu taqtiu imaam xanifa xanifa rahimahullah abu xanifa borom ngir ma noonu la doon daggee ay kayitam wa huwa aysaru ila rafi loolu moo gën a yomb booy jël wal wadu ak booy teg wal mutaala ak booy révisé maanaam booy booy booy nafar kon dañ nañ ko daggee noonu wa yanbagi an laa yakun fi l war na it moom taalibe bi bu mu nekk fi kitaab bi ci téereem shay'un dara loo xam ne min xumri dafa xonq maanaam mbindam bu ci dara xonq comme ni nga gisee téere alquran yi léegi dañ ci amay bind yu xonq allahu yëpp dañ koy xonqal loolu nag baaxul mu nee na fa innaha saniu salafit salafasi euh, falasifa falasifati loolu euh, jëfuk waa falas falas falas mooy ñi nga xam ne dañ leen a sisir euh, tubaab yi ñoom ñooy def loolu waaye laa saniu salaf waaye du jëfu nit ñu baax ña ñu njëkk ñi wa min mashaayixina mu neen bokk na ci suñu téere suñu sëriñ yu njëkk yi man kariha istimaal al murakkab al ahmar am na ñoo xam ne dañ doon bañ kuy jëfandikoo daxa bu xonq wala feutre bu xonq wala bi bu xonq mu ngoog kon incha allah dañuy taxawane foofu ba suba ak jàmm ñi ñëwal la ci mu lu mujj si buntu bi mooy wa min taazim al ilmi taazim al shurakaay fi talab al ilmi mu ngoog yal na yàlla de wax dégg topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu